salaamaaleykum euh, mbokk internet yi ñu ngi nii nag euh, toog suñu jigéen suñu xarit mu mooy mooy mooy mooy def lu ko saf mais garaawul <laughs> maa moom am na feneen fu ñu gisee pour fii eh, belaa nga xam ne moom euh, sagu aar la yow sagu aar nga ndax yow ku xewle nga ñëw xam naa ne waa waa axlu aar ñi ngi xaar sa xew ndax yow boo xew ndax ku xewle wuyu nga ko macha allah maa ngi lay nuyu di la siyaar di am mbégte kontaan. man mi contentement bi ci man la ëppee di nuyu waa Thiès 24 ci liggéey bu mu ci ay bii ngeen di liggéey ci biir Thiès ngeen di ay jeune nekk ay xale am ambition wax dëgg yàlla ñëw innover aussi di leen yàlla defal jàmm ndax parce que ñu ngi liggéey ñun ak yéen te artiste bi bëggul lu dul visibilité kon donc ku koy permettre rek kooku yaay xam dëgg neexul. ndeysaan mi ngi noonu ñu ñëw nag fekk ko ci euh, xewu kaaw kaaw xewle te kaaw lebal na ku tey ñu fekk la ci xewu kaaw sa diggante ak kaaw waaw li ma waxoon sànq laay wax man maag kaaw aar boolewul maag kaaw suñu ñaari yaay ñoo doon ànd depuis ñu nekk xale kon donc kaaw sama frère la ñu dajawaat ci aar mu xam ni rakkam la fi fekk mu nekk tamit nit ku gëm sama talent nit ku ma gëm nit koo xam ne lu muy def moom boole boole na ma ci loolu aw ma fayam kon jàppee na ma rak kaaw nag dañ koy wax mention spéciale parce que lii yombul nit mën na jënd lu ko neex mais nit mën na jënd ay nit te artistes yi du leen déranger wu parce que léegi jot am ñëpp ñëpp am ay préoccupation yoo xam ne ci la nekk mais boo gisee Thiès Dakar fu ne la artiste bàyyeekoo ñëw rien que pour Kaaw kon donc baax rek moo am solo lu dul baax baax ko woon Kaaw nitu kese la Kaaw disponible na si ñëpp Kaaw xeebul kenn Kaaw ku ko woo dina ñëw Kaaw boo gisee sax pratiquement ci produit yëpp lay lool loolu lay wane ne nit ku baax moom moom mooy mel noonu parce que parce bu sa morom ah que ñun Thiès. nit ñooy xuloo suñu biir peut te amu ci sax mais ci gàttal su xuloo dee am ñooy xuloo suñu biir ñooy ŋaayoo suñu biir mais macha allah amu ci mais keneen ku ñu laal feneen ñun ñëpp ay jugandoo loolu loolu loolu ci artiste la ko yàlla dogalee ñun noonu dañu mel région yëpp ci ñëwee parce que dañu koy wax à tout moment fu ñu dajee benn la ñuy doon amul xaaj amul seen waaw kon donc yàlla na jàmm yàgg Euh, lii lii lii dafa neex lii dafa neex waaw. da ngaa baax ndax yow ñëpp nga amal jàmm mais belaa ñu jékki-jékki rek gis la euh, 2STV yi nga fay def émission man ma la gisee ci plateau bi nga toog ak sa jongoma waay macha allah dama naan sama jigéen bi euh, lii laa ko doon ñaanal mais naka nga def ba intégré waaw ñaan ñaan gi egsi na ñaan gi na ñaan bu nangoo sonal borom liñ naan métier dafay mokk te liggéey rek a wóor ndax aar du ëmb dafay xëy rek wasin mais boo ci defee li nga ci war a def nit ñi dofuñu parce que man bi mbetteel di commencé bi ñu tourné dama ni ci réunion bi ñu mujjee def euh, je parce que pour man lañ ko defee. li may wax ak Badou suñu réalisateur ak Serigne mi nga xam ni. Mhm. moom moo ñu jiite. dama li leen sama kàddu leen la woon ren dinaa liggéey te dinaa am leneen sama gëm-gëm la woon. lu ma gëmoon la. Mhm. que ni ren dinaa liggéey quatrième saison dinaa liggéey sénégalais yi dinañ ma dégg dinañ ma gis ci leneen te dinaa am leneen. donc yàlla tasu sama yaakaar yàlla def na ko kon yàlla yàlla def jàmm. 2S euh, 2S maa nga fa ña ma fa fekk yaatal ma duggee ma fa dara nag ndeysaan lu toog ñu sentir ma woo ma toog ñu sentir ma woo ma man tamit ma dem fekk fa ñu baax ñu sentir lu ñuy def li may li may def man ma sentir lu ñuy def ñu integre ma seen biir aw ma fa benn problème di ñaan euh, que sénégalais yi nañ ma ñaanal parce que dama dama dama nekk si yoon te dama ko bëgg a yeggale parce que yàgg naa si aar euh, sama sama ñàkk du du woon sax ñàkk dem mënu ma ko tuddee ñàkk dem parce que maa ngi sant yàlla tout le temps dama daan dajeek ay nit yow demal nga def lii demal nga def lii yow war nga weesu fii mais yoon yoon yoon wërsëg boo ko yàkkamtee mu daagu nga daw day waññeeku lu jot yàlla def yàlla moo gën a gaaw lu jot yomb tey bi mu jotee yomb na yàlla yàlla def jàmm waaw mi ngi noonu. naka naka ngay def ak émission yi euh, euh, par rapport ak comme yow théâtre lañ la xamee mbaa compliqué wul. non compliqué wul parce que loo gis rek ab jàngat la te nit su bëggee dara. dafay def dara waaw parce que man maa ngi xool si bi ma ñëwee mbetteel bi ma jëlee sama yoonu bopp ni damay def sama yoonu bopp mooy yoonu bopp mooy du ma du ma roy ci kenn am naa idole nag mais du ma roy ci kenn nit ñi dañuy ñëw ñëpp di làkk tubaab mu neex ma torop vraiment mu neex ma torop aw ma ci dara lu ma ci critiqué mais man ma ni comme sama génération ñi ma mag ak ñi nga xam ne maa leen mag ak ñi nga xam ne ñoo ma féete mag amul koo xam dina si làkk olof pire boo xam ne sénégalais yi mën nañ ko dégg waaw dama dem ma dem gëstu ji olof parce que daf ma jaraloon ma dem gëstu olof pour làkk olof bu pire te lu ma ci làkk nag mën naa ko teg olof lu ma la ci làkkal mën naa ko tekk du ma ci làkk lu ma xamul mooy 2 rek parce que bi ma duggee 2S dama dama dama sentir ni nekk naa ci beneen moom mais boo nekkee ci beneen monde da ngay def leneen parce que gëstu rek la gëstu li ngay def jaral la looy def nga préparé ko def ko ni mu waree parce que bu la yàlla mayee xas macha allah ngay wax li ngay wax neex nit ñi ngay wax nit ñi di la déglu kon ki lay déglu peut-être am na lu muy bëgg a récupérer ci kon donc bu la yàlla mayee loolu looy teg ci loxo nit ñi dafa war a leer. looy teg ci loxo nit ñi da nga ko war a gëstu looy teg ci loxo nit da nga ko war a seet seetantal ko mu ànd ak yar teggin nga bañ a déraper parce que yaa mën a wax yaa ñu saf buñ la tax a wax loo xamul. man je me suis mën a wax mi ngi aju ci xam li ngay wax xam li ngay wax loolu mooy mën a wax mais di rajax rajax rajax diw dafa mën a wax diw dafa mën a wax rek non non non mën a wax mi ngi aaje ci xam li nga li wax ndax yaa mën a wax yaa ñu sax tax a wax loo xamul mi ngi noonu. <laughs> mais lan mooy lan mooy man bëggoon naa la laaj aussi lan mooy secret Bella nga xam ne Bella euh, ndeysaan euh, boo ko tàllalee micro taal caméra yi gis beneen Bella par rapport ak boo toogee ak moom. bu bu solul mbubu. waaw parce que lii mbubu la ñuy sol. bu ñu solee mbubb Sénégalais yi dañuy déglu. kon dañoo war a nekk leneen def leneen. def leneen bu ñu fa jógee ñu xam ne jógee nañ fa. ñu bàyyi loolu fa mu nekkoon parce que aar kenn du ko fowee parce que man su ma gisee kuy fowee aar sa aar ci mbedd mi dama lay xaw a mere parce que mbubu la da koy sol boo waree yëg ci plateau bi nga yëg ci plateau bi nga taxal ko ba mu mat bu jeexee jeex na nga denc li ngay réserver ko parce que artiste war na sàppi artiste war ta bari ci bëtu nit yi artiste warul lu ne mu dugg ca fu ne mu dem fa foo gis nga gersu ko fa ŋàññi ma kenn de Sénégal wax fi dafa jafe wax fi dafa jafe da ngay wax nit ni moo ko moom mais man dama wax sanoo ni ma xalaatee ni ma xalaatee ndek ndek noonu laay waxee wax dëgg yàlla mais waxuma kenn joxuñu ma kenn baaraamu tuuma parce que gisuma ko ci kenn mais dama wax ni ma xalaatee que ni artiste dafa war a am loo am loo loo am xamante ni daal yaa koy moomal sa bopp sa aar ko fawee boo wàccee ci plateau bi wàcc nga ci plateau bi mais yoo xam ne des fois dañuy waaj foo leen fekk dañuy bëgg a wane ñu ñoom la dañuy bëgg a théâtre dañuy bëgg noonu loolu c'est pas bon c'est bon boo wàccee ci scène bi xamal ne wàccee scène bi léegi nekk nga nit ki nga doon man su ma ñëwee betteel du ma nekk Bella Nafisatu laay doon Nafisatu bu pànk Nafisatu bu fres féroce du moins Nafisatu bu mën a wax wax yu rëy mais su ma ko simmee Bella laay doon Bella bu dal Bella bu bari histoire Bella bu bari wuli wax man Sénégal ku ma wax bari wu ma wax doo ko gëm laajal ñi ma dëkkal wala sama koñ je te jure ku ma wax bari wax man mën naa xëy 24 heures sur 24 ma tëdd ci nekk du ma génn mais ku ma ko wax doo ko gëm. dama koy simmi su ma ko simmee de nature noonu laa mel mais su ma ko solee damay wax ba ay muusu ndaw di génn sama gémmi gi ah waaw waaw ah waaw. loolu la loolu la yàlla loolu la yàlla natoo <laughs> waaw mais kontaanee naa la vraiment ñëw gi ma ñëw fekk la fii day wane ne axlu aar ñëpp benn la. maa la gën a kontaan ñun ñëpp benn lañu en Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xaar ñaar c'est nous dans nous soo gisee ni ñu toogee nii nga xam ne lépp rafet na baax rek a wóor lu dul baax baax a ko waaw li lay wane lépp rafet na dañu marale sama benn xarit Anna Diawara Anna Diawara sama lépp la sama xarit la madame Ndiaye yaayu yaayu Serigne Fallou yaayu euh, Coco Chanel yaayu Coco. sama xarit la ñu maranele ko bi ma soxlaa ay nit yu ma àndal parce que ñun ñooy ànd ci suñu biir bi ma soxlaa nit yu ma àndal dama woon dama woon nday awa woo Soda nday awa dafa Soda dafa yor malaat nday awa doomam dafa feebar mais dama leen jugleen leen parce que dama leen soxla te damaa war a ànd ak ñu sol jug kon donc ñun benn la ñu ñun Thiès benn la ñu ku ñu bëgg a diviser wala nga bëgg a def leneen jàppal ni doo ko réussir parce que ñun ñëpp benn lañu bu ñu dajee benn lañu te bala ngaa xam benn lañu yow da sa micro nga yor diggee laa la benn artiste seet dinañu mel ni jadd ci sa <laughs>